salaamu aleykum wa rahmatullah ah xale yi ñu ngi may laaj léegoo-léeg benn wax ñu bëgg ma wax ci léegoo-léeg sax Sénégal neexut a waxee waaye léegoo-léeg responsabilité mooy tax ma wax ndax dafa am lu am solo loo xamante ne dafay am bu yàggul muy semaine bi passé policier bi nga xamante ne dañ ko raje maanaam dafa jalgati charte boo xamante ne moo ko waatoon état dégg nga dal ci kawam raje ko te loolu du lu bees ci àdduna bi yëpp yaakaar naa li sénégalais di baal ci borom teni sax soo demee ñi ngeen xam ne ñoom ñoom ngeen di roy yéen nitu àdduna yi muy Amérique ak Europe duñu ko baal ci borom tëni mu def lu ko neex nag ñu teg ko li war ci moom ndekete yoo taalibe ba jullit la kon jullit yi war nañoo am taxawaay ci loolu ndekete yoo taalibe bi sufiyanke la kon ci islaamu suufi la nekk dafa am sëriñ ñoom it ñu am ci wàll léegi problème bi nekk problème boo xamante ne société sénégalais ñoo ko moom te dañ ko war a partager man nag dama cee am gàcce en tant que kuy dund islaamu suufi en tant ku am sëriñ ndax tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun julit lañ yonent bi dafa ne unsur axaaka zaliman aw mazluman dimbalal sa mbokk dimbalil sa mbokk gu ñu tooñ wala mu tooñ ñu ne ah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dimbale sa mbokk kay guñu togn ñep xam nañ ko waaw sa mbokk mu togn nak di julit nak nga koy dimbalé yonent bi nee nga wax ko dëkk kon nak suñ mbokk policier momu nga xamantene ne la julit la islam nee ko da nga togn kon képp ku koy défendre di ci yëkëti sa mbag ah jalgati nga islam jalgati nga Islam suufi bi nga nekk te wone woo tamit résiltat islaamu suuf yi ndax islaamu suuf yi ci boppam mooy am sëriñ bëgg yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxtu wu jot ngay jox cër yàlla ci sa dund cër bu ëpp yàlla ci sa dund police bi tooñ na li ko sëriñ si war a wax mooy lan tooñ nga ba mu xam ne tooñ na ñu wëlbati ñaan état ñu wëlbatiku ñaan état ne ko baal ko ndax taalibe la boo xamante ne ndongo la boo xamante ne munta garder émotion am maanaam xaalam not na ko ci bëgg-bëggam ak yëg-yëgam diggante moom walu yàlla bu mu gis wala sëriñ bu mu gis wala moo xam ki mu gis ku doon ah bu boobaa bu fekkoon ne ay sëriñam waxee nañ ko noonu bu boobaa état dana ko baal waaye tamit dana xam boppam muy leçon boo xamante ne danañ ko jox képp ku takk teni kuy sol teni ci senegal benn loolu moo noonu mbiram bu fekkee ne ay jullit lañ bu fekkee ne tamit islaamu suufi la ñuy prôné islaamu suufi mooy am sëriñ te am sëriñ nag dama am gàcce ci problem bi ku ne joge fele ne ko mako may téré mako nangam mako nangam mako nangam ñepp naan am sëriñ bu baaxa tax li wolu ko déedéet sëriñ bu baax xam nga moy lan wax la dëgg te sëriñ sénégalais yi dañuy yaakaar ne ba tay sëriñ xamul liñ koy doyé parce que sëriñ wuñ ko pour am kër ëlëk am jabar am auto am terrain am nangam am nangam am aduna sëriñ wuñ ko loolu ku yaakaar ne loolu lañuy doyee sëriñ sëriñ bu baax loolu résultat boobu la la war a jox ci dund danga ngaa da ngaa xamut li ñuy doyee sëriñ sëriñ tamit doyewuñ ko pour àjj na ëllëg sëriñ dëgg-dëgg liñ koy doyee mooy mu delloo la ci sées ba la yàlla tegoon te sëriñ bi gënu laa bëgg yàlla yàlla la gën a bëgg ku lay bëgg ci kaw suuf sëriñ bi yëkkati la delloo la ci séesam boobu nga xamante ne falal yàlla tegoon yow doomi aadama ne yaa ma gënal xool tey xool tey ni géej gi déggale yàlla te boobu ba léegi ma ngi fa toog musul doxantu dugg ci biir dëkk bi kon ba am xool ni ngelaw li déggale yàlla xool ni safara si déggale yàlla xool ni dégg nga jinne yi déggalee yàlla bàyyi fi organisation yi xool leen garab yi xool leen montagne yi fañ ne sëmm taxaw lañ taxaw nit nekk fi ci li ko neex kenn ku ci nekk nekkul ci li ko neexul lu dul déggal gi nga déggal yàlla yàlla romb fi suuf romb fi ngelaw romb fi safar romb fi ndox te ëpp doole fopp nit te déggal ko yàlla yàlla ba foofu ne nit am a gënal kon nag nit sées ba ko yàlla teg ne yaa ma gënal nit war naa góor góorlu ba xam lu tax mu gën bëgg xam lu tax mu gën moo tax nga jox loxo sëriñ soo ko xamul perte nga bëgg xam lu tax mu gën ba yàlla teg la ci séesam boobu moo tax ngay wuti sëriñ pour mu yar la ba nga delloo la ci sées boobu nga xamante ne fa la yàlla tegoon dégg nga ne bàkkul ci kanamu lu yàlla bind sëriñ loolu lañ koy doy sëriñ doye wuñ ko pour àjjana ëllëg yàlla moom àjjana moom moom safaraam lu ko neex la ciy def ëllëg adduna bii mënoo baax baax baax baax baax ba yàlla def la milliardaire mënoo bon ba yàlla tere la def la faqir yàlla ci coobareem lay defee moo tax nag kon lii problème la boo xamante ne am na fi ci Sénégal nit ñi di koy ndamoo di ko yëkkatee mbagg te yàq nañ deru islaamu suufi war nañ ne islaamu suufi lii la islaamu suufi amul kenn dégg nga ku Cheikh Ibrahim ñas di yar ci islaamu suufi ngay défier institution amul kenn koo xam ne islaamu suufi la yar ngay bañ a tënku ci ron constitution ak bu mën a doon loolu lañuy doy doyee islaamu suufi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne man ahaana sultaanahu faqat ahaana allah képp koo xam mu ngi doyadal dégg nga ay kilifaam mu ngi doyadal institution ak bu mu mën a doon yaa ngi doyadal yàlla maanaam nguur yàllaa koy séddale waxuñu ko pour far fenn waaye ñun dañoo bëgg a wone ne lan lañu sunu sëriñ si war a jëriñ te sëriñ bu lii doonut sa taxawaay échec nga ak koo mën a doon asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilah man de maa ngi sant yàlla musuma ànd ak benn homme de tenue fii si xadara bi may nangu muy sol teneem di ñëw di assister sunu programme te ñëpp xam nañ daayira Liyaawul Hamd bëri na ay homme de tenue ci biir daayira bi bëri na ay homme de tenue ay militaire ak ay policier maanaam ay gendarme dégg ci biir waaye loolu état ko moom kenn mësuta dégg man ci xadara bi may dem sax nit sol te ni ànd ak man duma ko nangu parce que du sama lal moomu ma ko góor góorlu ñu xàmme li ñu moom ak li keneen moom yarkat nag bu xàmmewul jiitekat bu xàmmewul ñu mu jiitee ki leen mbaaw